nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy ittewoo dogal seen mbokk jullit ngir yool bu rëy bi nga xam ne daf caa nekk lépp loo am bul ko xeeb sa kafe nga am dañ koo meew wala meewuñu ko sa mburu nga am sa tàndarma nga am lu mu mënti doon góorgóorlul nga bokk kook say mbokk jullit ngir di mebet yiw bu yaatu yiw bu bari waaye occasion bu rëy boo xam ne xamoo ba xam bu la rëccee dina la fi fekkaat am déet